aousubillahi min asheytaan rajim bisimillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu mbokki réew mi rawat na sunu mbokki jullit yi man Ibrahima Diop Diop mooy maa ñëw tey ngir fas yéene waxtaanee sëriñ Mouhamadou Fallilou Mbacké mu gën a àdduna ci le 27 juin 1888 ci Daaru Salaam di doomu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Habiballa Mbacké Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Xaadimu Rasul ak kii nga xam ni mooy soxna aw Bousso soxna Awa Bousso ak Cheikh Ahmadou Bamba seen ñaari waajur yee bokk lépp ndax kii di soxna Jaara Bousso mooy wéyjuru Cheikh Ahmadou Bamba waaye kii nga xam ne mooy Mouhamed Bousso ñu gën koo xam ci sëriñ Bousso bi mooy wéyjuru soxna Awa Bousso mi jur sëriñ Fàllu te ñoom ñaar kii nga xam ne mooy maa Asta Wala Mbàkke mooy seen wéyjur wu jigéen waaye sëñ Mouhamadou Bousso ñu gën koo xam ci sëñ Ma Bousso Awa Mbaye mooy seen baay Ma Bousso Awa Mbaye kii nga xam ne mooy Matabar Bousso mooy wéyjuram Matabar Bousso Hamad Bousso Hamad Bousso Seydina Xaliw waaye Seydina Aliou Ousmane Ousmane Sahid Sahid Ibrahim Ibrahima Ismaïl Ismaïl Zakaria Zakaria Ismaïl Ismaïl Souleymane waaye Souleymane Alxasan Alxasan Ibrahim Ibrahima Abdullahi Abdullahi Haroun Haroun Abdullahi Abdullahi Mouhamed Mouhamed Abdul Fatah moo jàll nag ba ci kii nga xam ne mooy Abdul Xaadir Jeylaani mi nga xam ni Moussa moo ko jur Moussa Abdullahi abdullahi sahid sahid yahya yahya muhammad muhammad daawda daawda moussa moussa abdullahi abdullahi hasan hasan moussa na moussa na seydina hasan seydina hasan fatimata bintu ya rasulillahi fatimata bintu ya rasulillahi seydina muhammad salaa sallam waaye sëriñ Fallu Mbàkke xaadimu rasul maam Mor Anta Sali maam Balla Mbàkke maam Mara Mbàkke sëriñ Fallu Mbàkke xaadimu rasul soxna maam Jaara maa astawala Mbacke sëriñ Ahmadou soxna buso maam Maram waaye sëriñ Fallou Mbacke soxna aw Bousso sëriñ Mohamed Bousso ñu gën koo xamee ci sëriñ Bousso be waaye soxna maa astawala mooy waajuram soxna maa astawala sëriñ Ahmadou soxna Bousso sëriñ Ahmadou soxna Bousso maam Maram Mbacke sëriñ Fallou Mbacke mi ngi gane àdduna ci weer wi nga xam mooy weeru rajab waaye gane ci ci guddi gi nga xam ni mooy guddi rañaanu yonent bi sallallahu alayhi muy guddi goo xam ni. sunu borom dafa ni guddi jéggale la ak guddi yërmande muy guddi gu am solo ñu gën ko wax ci guddi kasu rajab muy guddi goo xam ne guddi guddi gu màgg la nekk ci juróom-ñaareelu weer bii nga xam ne ginnaaw muharram safar rabiul awal rabiul saani jumaada ula jumaada saaniya rajab mu nekk juróom-ñaareelu weer ci nga xam ni mooy sunu atuk lislaam gi di weer bu màgg mu am solo bi nga xam ni Sëriñ Fallu Mbàkke gane na ci àdduna dem ba xaw a dëgër yàlla dogal woy juróom bii di Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul moo ko njëkk a sa alxuraan bi mu ko tàmbalee jàngal ba sëriñ Fallu tàmbalee xàmmee ko ràññee xam lu bari mokkul lu bari way juróom bi da ko yëkkati jox ko kii nga xam ne mooy sëriñ Ndam la Abdourahman nga xam ni moo yoroon daara ca Alimul Xabir sëriñ Fallu yàgg fa lool ci loxo yi sëriñ Ndam la Abdourahman jàng fa lépp lu fa nekkoon xam-xam mu pekk ko delluwaat kër woy juróom bi Bamba Serigne tubaa daal di koy yëkkati nag jox ko kii nga xam ne mooy maam Thierno Ibra Fati mu nekk ci loxo maam Thierno Ibra Fati ba lépp luy xeetu xam-xam ci ëttu maam Thierno Ibra Fati Serigne Fallou Mbacke daal di koy peeg ci ginnaaw gi bi mu kër maam Thierno ci lañ ko yóbbu ci kii nga xam ne mooy maam Mor Diarra te bokk ak Serigne lépp maam Mor Diarra daal di koy yar jàngal ko tarbiya ko ci ñett yi nga xam ni mooy li gën a am solo ci yoonu lislaam muy taalim tarbiya ak tarxiya jàngal na ko yar na ko te tàggat na ko bi nga xam ne sëriñ fàllu nag nekk na ci diggante yooyu ba pekk fa fay pekk ci la doog a delluwaat ci loxo ki nga xam ni mooy sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul mi waajuram nga xam ni moo mottali ci moom lépp luy wàllu xam-xam na ko ci moom dolli ko bi nga xam ni sëriñ Fallou Mbacké nag jóge foofu nag nekk ak sëriñ Tuubaa Xaadim boo waajuram bi yàlla dogal mu wàcc liggéey bi waajuram bi wàcc liggéey mu féete fii nga xam ni fala la rek war a féete magam. waaye fa la taalibe war a féete sëriñam mu féete fekki kii nga xam ne mooy Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké mi nga xam ni moo wuutu sëriñ Touba ci atum 1927 bi nga xam ne dem nañ ba 1928 sëriñ Fallou Cheikh Mouhamadou Moustapha xamal kon ni sëriñ Touba Xaadimu Rasuul amoon na yéene aji màkk yow laa bëgg nga mottali ji yéene ji kon mu aji ji màkk ci ndigal kii nga xam ne mooy Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké bi sëriñ Fallou dem màkk nag mi nga ànd ak waajuram yi nga xam ni mooy maam Cheikh Anta di borom gaawaan ànd ak sëriñ Mbacke buso sëriñ Moulay buso sëriñ Takko Mbacke mi nga xam ne mooy ñaareelu doomi maam Cheikh Anta waaye ànd ak ki nga xam te mooy sëriñ Modou Ndiaye Diop ànd ak sëriñ Ibrahima Dia ak sëriñ Mayoro Fall sëriñ Fallu ba mu aje Màkka ba dellu nekkati ci ndigalu magam ju tedd ji di Cheikh Modou Moustapha Mbacke mi nga xam ni daf ko téewee ni Xaadimu Rasul bi nga xam ne ni ànd naag Cheikh Modou Moustapha di liggéey liggéey bu kawe ba waaye yàlla dem ba suñu borom dogal ci le 13 juillet 1945 Cheikh Modou Moustapha wàcc ci liggéey sëñ Fallou daal di koy wuutu daal di toog nag ci xilaafa gi toog ci jotaay ak sëñ Tuubaa gi diir gi nga xam ni sëñ Fallou nee na fi lu jiitu sax muy toog ci xilaafa gi jot na fi liggéey liggéey am solo waaye liggéeyam yi nga xam ni sumb na ko ci gannaaw bi nga xamee ni nekk na xalifa dañ koy boole ak li mu liggéey lu jiitu mu doon xila mu doon xalifa ndax mi ngi sañ ci dëkk bii nga xam ni mooy Ndindi ci 1913. sanc Bogorel ci 1914 kon boobu fekk na nekk goon xalifa te li taxoon mu sanc dëkk yooyu mooy woy jërëm ca la mu nekkoon muy di jàngale di yare tey tàggat moom sëñ Fall la xam moo tax mu sanc dëkk yi def fa ay daara di jàngal nit ñi di yar nit ñi te di tàggat muy taalim tarbiya ak tarxiya nga xam ne mooy projet bi nga xam ni moo gën a mag ci lislaam ndax nit ki boo ko jàngale ba mu jàng te yarawut njàng mu du am njëriñ waaye nit ki boo ko jàngalee ba mu jàng da koy yar ba mu yaru waaye nit ki boo ko jàngalee ba mu jàng nga yar ko te tàggatoo ko du nangoo liggéey kon ñett yooyu mooy ñett bunt yi nga xam ni moo waraloon tamit sëriñ Fallou sanc ay dëkk def fa ay daara ngir matale taalim tarbiya ak taraxiya 1913 mu sanc Ndindi 1914 mu sanc Bokorel 1930 mu sanc Mbeb 1932 mu sanc Merina Boobo 1938 mu sanc Xayaan 1948 Touba Mérina la sanc 1950 mu sanc dëkk bi di Aliya waaye 1952 Serigne Fallou Mbacké sanc dëkk bi nga xam ne mooy Nayrul Maram Nayrul Maram 1961 Serigne Fallou Mbacké sanc dëkk bi di Touba Sourang waaye 1962 Serigne Fallou Mbacké sanc Touba Bogo waaye nag le 7 juin 1963 liggéey bi nga xam ni diir gi mu nekk xalifa mi ngi ci nekkoon muy jumaay Serigne Touba ji nga xam ne ndigal la ci ñoom ñu matale ko le 7 juin 1963 la ko Serigne Fallou Mbacké inauguré ñu daal di ciy julli julli ji njëkk ji Serigne Fallou Mbacké nag diir gi nga xam ne nekk na fi xalifa liggéey na fi liggéey yu mucc ayib ci wàllu développement yoo xam ni da koo def ngir suqali dëkkam bii nga xam ni mooy Touba ci wàllu lotissement électrification lépp loo xam ni ci wàllu goudron la Serigne Fallou liggéey na ci liggéey bu mucc ayib. daal di fay installé forage te Daaru Marnaan nga xam ni Touba amatul jafe-jafe ndox jumaa ji nga xam ni it moo ci liggéey liggéey bu mucc ay boobu nga xam ni mottali ba def fa juróomeeri sooroor ba nga xam ni moom lu tuddee maam Cheikh Ibrahima Fall làmp yàlla dogal sañ Fallou Mbacké ne fi liggéey lu muy liggéey ba le 6 août sunu borom dogal mu daal di wàccu liggéey. Serigne Mouhamadou Fallilou Mbacké yàlla def na mu amoon njaboot gu am barke. ci njaboot gi ñu mën cee tudd ñoo xam ne rek du ñëpp waaye am na ñoo xam ne mën nañu cee tudd muy sëñ Abdou Karim mu mag ma ak ki nga xam ne mooy sëriñ El Hadji Cheikh Oumy mu mag ma amit kii nga xam ne mooy sëriñ Mouhamadou Moustapha Mbacke Fallilu ñu gën koo xam sëñ Mourou Boussa Dieng sëriñ El Hadji Mouhamadou Lamine Bara Mbacke Fallilu ak kii nga xam ne mooy sëriñ Salim Mbacke Fallilu ñu naan ko Sal Galas sëriñ Habib Mbacke Fallilu ndokk sëriñ Jili mbakke Fallilu mi nga xam ni ci 2005 la wàcc ci liggéey sëriñ Abo Mbacke Fallilou mi nga xam ni mooy xalifa ak kii nga xam ni mooy sëriñ Bassirou Mbacke Fallilou sëriñ Abdou Fatah Mbacke Fallilou sëriñ Mourtada Mbacke Fallilou sëriñ El Hadji Mouhamadou Xaban Mbacke Fallilou sëriñ Afia Mbacke Fallilou sëriñ Mamor Mbacke Fallilou sëriñ Abdou Samane Mbacke Fallilou sëriñ Cheikh Oumy Mbacke Fallilou mu mujj mi. ak kii nga xam tamit mooy sëriñ Takko Mbacke Fallilou sëriñ Aliou Bousso Mbacke Fallilou sëriñ Ibrahima Mbacke Fallilou sëriñ Abdul Karim Mbacke Fallilou borom Makarma Akhlaq sëriñ Ahmad Rafaay Mbacke Fallilou sëriñ Ateex Mbacke Fallilou ak sëriñ yi daal Mbacke Fallilou nga xam ci góor ñi ñooñu rek lañu ci barkelu mu amoon soxna mbenn mi nga xam ne mooy taam muy soxna mbenn Fallilou soxna mbenn Baara Fallilou ak soxna Mame Bousso Mbacke soxna moomi ngalas fàllilu soxna waalo mbàkke fàllilu mu njëkk ma ak meneen soxna waalo mbàkke fàllilu moom it mu mujj mi ak kii nga xam ne mooy soxna maam fàtti mbàkke fàllilu bu usine ak soxna maam fàtti mbàkke fàllilu mu xaar soxna ami cheikh mbàkke fàllilu soxna may galas rakki sëriñ abdou karim mbàkke borom maakar ak kii nga xam ne mooy soxna mariama kunta soxna daba mbàkke fàllilu nga xam ni ñooñu dañ leen ciy tudd waaye njaboot gi moom ëpp nañu loolu waaye bi nga xam ni sëriñ Fallou Mbacké wàcc na liggéey ci le 6 août 1968 yàlla def na kii di sëriñ sa Moustapha Mbacké Fallilu ñu gën koo xam ci sëriñ ba sa Dieng mooy ki ko njëkk a wuutu toog ci jotaay sëriñ Fallou Mbacké 1968 ba 2000 muy fanweeri at ak ñaar mu liggéey fi liggéey mucc ayib motoon ko lool di ko ñaanal yal na yàlla yokk leeram te taas ñu ci barkeem. bi nga xam ne sëriñ Mouhamadou Moustapha Mbacke Falloulu moom sëñ Modou Bousso Dieng wàcc na ci 2000 kii di sëriñ Mouhamadou Lamine Bara Mbacke Falloulu moo ko wuutu toog ci 2000 ba 2010 ci jotaayu sëriñ Fallou waaye bi nga xam ni sëriñ Saliou Mbacke moom sëriñ Touba Khadimou Rassoul wàcc na liggéey te doonoon xalif général des Mourides doonoon doomi sëriñ Touba gi mujjoon ci jamono kii nga xam ne mooy sëriñ Mouhamadou Lamine Bara Mbacke Falloulu moo ko wuutu doon sët bi njëkk a toog jotaayu sëriñ Touba. boole xilaafa sëriñ fallu ak xilaafab sëriñ tubaa liggéey fi liggéey mucc ayib yàlla nañu ko yàlla fayal yàlla na yàlla yokk leeram te taas ñu ci barkeem bi nga xamee ni kii di sëriñ Mouhamadou Lamine Bara Mbacké Fallilou wàcc na liggéey ci 2010 kii nga xam ni mooy sëriñ Abo Mbacké moom sëriñ fallu Mbacké moo ko wuur ci 2010 ak léegi doon xalifak sëriñ Fallou toog ci jotaayu sëriñ Fallou te ko lool ñu koy ñaanal yàlla na sunu borom gën koo dëgëral yàlla na sunu borom defal ko tawféex yàlla na sunu borom defal ko taysiir ba lii mu yéene liggéey sunu borom kattanal ko ba mu liggéey ko ba làq ngërëmal Serigne Touba Xaadimu Rasuul mii maamam ak kii di maam Cheikh Ibrahima Fall mii maamam ndax Serigne Abo moom Serigne Fallou soxna maam Say Fall mi ko jur Serigne Mouhamadou Moustapha Fall ay waajuram te Serigne Mouhamadou Moustapha Fall maam Cheikh Ibrahima ko jur waaye Serigne Abo. moom Serigne Fallou Serigne fàllu Mbacke mooy waajuram waaye xaadimu rasool moo jur sëriñ Fallou kon muy sët ci Serigne Touba di sët ci maam Cheikh Ibrahima Fall ñu koy ñaanal yàlla na fi yàgg te wér ba lépp lu mu yéene liggéeyal Serigne Fallou Mbacke suñu borom kattanal ko dëgëral ko ba mu liggéey ko waaye lépp lu mu yéene liggéey ci tooluk Serigne tubaa ga xaadimu rasool bi nga xam ne benn tool la yàlla na ko suñu borom kattanal dëgëral ko ba mu liggéey ko di ñaanal njabootu sëñ Fallou gépp suñu borom dafa leen tawfeex ak taysiir di ñaan sunu borom ñii nga xam ne ñoo fi desandi sunu borom kattanal leen dëgëral leen ba lépp lu seenu yéene ak seenu naal sunu borom kattanal leen ba lépp loo xam ne yéene nañ ko rek ñu mottali ko barke Sëriñ Fàllu Mbàkke di siyaar ak màggal sama maam muy sëriñ Abdou Fatah Mbàkke moom sëriñ Fàllu nga xam ni soxna Umu Kalsum Gay mooy waajuram waaye soxna Umu Kalsum Gay baara xëri Fall mi ko jur ci góor yàlla sëriñ tubaay la bokkoon ca Cheikh ya te Baara Xëri Fall Abdou Xëri Fall ak Ibra Xëri bokk lépp di ko ñaanal moom sëñ Abdou Fatah Mbacke yàlla na fi gën a yàgg gën a wér ba lépp lu mu yéene liggéeyal sëriñ Fallu yéene ko liggéeyal sëriñ Tuubaa suñu borom kàttanal ko dëggal ko ba mu liggéey ko di ñaanal it sunu wëllëre ba sunu soppe ba sunu sëriñ ba sunu xarit di sëriñ Abdou Karim Mbacke borom Makarima Akhlaq nga xam ni ba mu diggee Géejawaay liggéey na fa liggéey boo xam ni liggéey bu mucc ayib la yar na ko yàlla suñu borom fay ci barke Serigne Fallou Serigne Abdou Karim Mbacke ñu koy ñaanal fan wu gudd ak wér ak tawféex ak taysiir ba lépp lu mu yennee liggéey ci yoon wi suñu borom kattanal ko dëgëral ko ba mu liggéey ko ba làq ci ngërëmal Serigne Fallou Mbacke ci keppaaram ñu am fa suñuy wëllëre yu yaatu Serigne Alsane Gueye jëwriñ Alsane di ko ñaanal moom it sunu borom gën ko dëgëral sunu borom kattanal ko. sunu borom dafa ko taw ak tey siir ba li mu yéene liggéeyal sëriñ fallu yéene ko liggéey sëriñ Abdou Karim Mbacke mu mottali lépp yàlla na sunu borom dafa la taw ak tey siir sëriñ Alsaan mi nga xam ni euh, dama koy wax jëriñ Alsaan moom sëriñ Abdou Karim Mbacke borom maakaam ak axlaaq di santit ak a ñaanal sama nijaay joo xam ni moom boo ko gisee sa xel dem ci du du sëriñ Fallou muy sëriñ Modou Sène moom sëriñ Fallou nga xam ne moom sëriñ Fallou rek lay dund. di doomi sama maam Ayda Mbay ak sama maam Alaaji Seen jëleen ñaanal sunu borom dafa leen tawfeex ak taysiir ba lii muy liggéey sëriñ Fàllu sunu borom dafa ko ci tawfeex ak taysiir moom sëñ Modou Seen waaye mënatuma wax ci sëriñ Fàllu te ma sama benn jëwriñ sama kilifa gu ko mat muy sëriñ Modou Bettiña nga xam ne ku bëgg sëriñ Fàllu la ku doyloo sëriñ Fàllu la ku yaakaar sëriñ Fàllu la ku bëgg sëriñ Fàllu la di ko ñaanal fan mu gudd ak wér ak tawfeex ak taysiir di ko ñaanal jullit yëpp di ñaan sëriñ Mountakha Mbacké ak kilifa diine yi ne ci réew mépp yal na yàlla dëgëral leen kattanal leen dafa leen tawfeex ak taysiir dafa ko taalibe dafa ko jullit yi yàlla sunu borom saafara ñu suñu aajo guddal fan yi wéral cër yi te tas ñu ci barke sëriñ Fallou Mbacké allahuma amin asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.